إن النبي الرسول أحمدا خدمه لا يزال صمدا إن النبي الرسول أحمدا Assalamualaikum, wa rahmatullahi wa Abu eh, <clears throat> sëriñ Aboubacar sëriñ Cheikh Abdou nee mi ngi yëkkati ay kàddu waaw mi ngi kàddu yëkkati ay kàddu ñu nuyo. tàmbalee ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa di la <clears throat> présenter délégation bi nga xamné moo bàyyi ko ci cheikh Mouhamadul Bachir mu cheikh Abdoul Ahad mu sëriñ Abdou Khadir mu tànn mbooloo moo xam ne mbooloo mëpp la tax mu tànn leen boole leen ak sëriñ Abdoul Ahad mooy xam ne mi ngi jëm si ci këram magam ju ko bëggoon lool ci xolam doonoon soppeem doonoon itam ab conseiller am moo tax délégation bi nu mu toll mu xeeb ko waaye sëriñ Abdoul Ahad jiite ko di doomi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma di seen mbokk di seen xarit xam naa sax sëriñ baa ngi njëkk a wax ne de sunu doomu baay waaye moom nee na fii nag dafay war a am ay mbubb ndax loolu la yàlla dogal te nee na cër booboo ko dàqal nag boobu boobu lay jël si waaw waaw kon waaw <laughs> nee ne nee na mu ànd ak sëriñ seexu Seexuna sëriñ naa di seen mbokk di seen doomi baay moom alaaji Mouhamadou Lamine Baara moom Cheikh Mamadou Fadal moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu relation extérieure ci biir comité d'organisation bu Magalu Touba waaye mu ànd ak sëriñ Issa Mbacke moom sëriñ Moustapha moom Cheikh Mamadou Basir ànd ak sëriñ Abo Mbacke xasida moom sëriñ Moustapha xasida nekk ci secrétariat bu comité d'organisation bu Magalu Touba ànd ak sëriñ Falilou Mbacke moom sëriñ Khalil moom sëriñ Fallou moom sëriñ Touba mu ànd ak rakkam sëriñ Abdoul Baaxi waaye ànd ak sëriñ Bachirou Mbacke moom sëriñ Cheikh Gaynde ànd ak sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Moustapha Ndiaté ànd ak sëriñ Djili Mbacke moom sëriñ Fallou moom sëriñ Mamballa ànd ak sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Fallou Njurul ànd ak sëriñ Modou Mbacke si mais di seen mbokk seen mbokk moom sëriñ Malick Bassine si waaye nag représentant xalifa général des mourides yi ne ci région yëpp moom mii moo leen jiite daan jiite it bu grand magal du Touba ànd ak sëriñ Mousta Mourtala Bousso moom sëriñ Abdou Wadoud Bousso moom it moo yor lépp lu jëm ci wàllu hydraulique ak électricité bu comité d'organisation bi ànd ak serigne djili Bousso mu yor walu finance ci comité bi ànd ak serigne Abdoulahat hadsi mom serigne Modou kharisi mom serigne malik Bassine si waye ànd nañ ak serigne Ahmed salum djeng di sen mbokk di sen xarit mo ànd ak maître mohamed Diop momit di ku min fi ànd ak serigne Mourtada ndjay ak serigne Khadim Amar mom serigne Aliou Amar ànd ak serigne Abdoulahat Faye serigne Cheikh ndjay ak serigne mustapha Lo ak serigne Pafal di entrepreneur di talib Serigne Abdullah Lahad anda ànd ak Serigne Abdullah si Abdullah Lahad bu sa maram ànd itam ak Serigne Murtala Ndiaye ak Serigne Mamoun Niang ak Serigne Mustapha si Xasida Serigne Mam Cheikh Ndiaye Serigne Bassirou Ndiaye Khadimul Khadim ak Serigne Mam Balla Sylla ak Serigne Ibrahima Tine ñi dal moy délégation bi nga xamné ñom la Serigne Bassirou di seen wayjur wa di seen xarit na nañ and ak Serigne Abdullah ñëwal ko ci kër boppam gi xam naa kàddu yi dañ koy bàyyee ak sëriñ Modou Mbacke si mu ubbi ko. sëriñ Aboubacry mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi. nee na sëñ Babacar mi ngi lay nuyu. di nuyu sa rakk yi topp sa ginnaaw yëpp. nee na mi ngi nuyu sëriñ Mansour. ak Cheikh Mouhamadul Moustapha. ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ak Serigne Cheikh Ahmed si nee na mi ngi nuyu ñi fi nekk ñëpp. defoon nañ na lii defoon nañ ko daaw. fekkee ren. fekkee yàlla nañ ko defaat déwén. nee na yàlla nañ ko defaat déwén. te kenn bañ a manqué. Euh, délégation bi bi ñu àndal. sëñ Fallou nee na lim nañ ko léegi. ci njiitul Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaynde Fatma. ci ak ñi mu àndal ñëpp. ak ñi mu àndal ñëpp. moom Cheikh Abdoul Khadir yabal ñu fi. ci kër gu tedd gii. ci kër gu tedd gii. kër goo xam ne yoonu murit wépp xam nañ ko. waxuma juddu bi. nee na jëlale na juddub kër gi. waaye taxawaayam bu rafet ci diine. waaye taxawaayu borom kër gi ci diine. ak jokk ak bokk. ak luy jokkale ak bokk. fexe ba lislaam bépp. fexe ba lislaam bépp. nekk benn bopp. nekk benn bopp. loolu sëñ Abdul Aziz. Abdul Aziz. al Amin. al Amin. liggéey na ci liggéey boo xam ne. liggéey na ci liggéey boo xam ne. képp ku ci aju moom. képp ku ci aju ci moom. sa àdduna ak sa alaaxira. sa àdduna ak sa alaaxira. mën naa defaru. mën naa defaru. ñu ngi leen di siyaare. nee na ñu ngi leen di siyaare. daaw waxoon naa ne. nee na daaw waxoon na ne. Sëriñ Abdul Aziz. Sëriñ Abdul Aziz. royukaay la. royukaay la. te su ma ko waxee. nee na ca su ko waxee. dinaa joxe firnde yi. dana joxe firnde yi. ndax bañ koy tuddee Serigne Abdoul Aziz Signor. ndax bañ koy tuddee Serigne Abdoul Aziz Signor. booba mag ñëpp a ngi fi. booba mag ñëpp a ngi fi. wala boog ñi ci ëpp. wala boog ñi ci ëpp. booba tuut tànk la ñuy wax. booba tuut tànk la ñuy wax. waaye mag ñëpp dëppoo. waaye mag ñëpp dëppoo. kàddug jox ko kàddug Cheikh Seydi Hadji Malick. mosu yàq dara. te mosu cee yàq dara nag. ku yàqut nag. ku yàqut nag. defar nga defar nga. di dox. àdduna di dox. bañ tuddee ba di ñu tuddeewaat ko sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. tur wële moom. tur wële moom. kenn dootu ko ko wax. am marxala boobu ab wàccukaay la woon. ab wàccukaay la woon. xam ne jaar na fa. boo xam ne jaar na fa. ba wessu ko. al amin nak al amin nag. dafay tur wu am solo ci diine. day tour wo am solo ci diine. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi gu ndawal sunu borom. gu ndawal sunu borom. yam Makka. yamu Makka. ñëpp ñëpp nañ ci ne. al amin. Muhammadul Amin la. ba yalla sunu borom yónni ko ci jaam ba yàlla dogal sunu borom yonni ko ci jami serigne sëriñ Abdoul bobo serigne sëriñ Abdoul mi bi yalla dogale ñepp di wax al amin. bi yalla dogale ñepp nangu ko tay di ko wooyee al amin. ñepp nak d'accord ci. ñepp d'accord ci nak lolu la doon dund. nak ba dégg xalif général de Tidiane. ba xey dégg nak xalif général de Tidiane. ku tambale ci tout tànk. ku tàmbalee ci ak tuut tànk ñu la koy wooye nga dem ba mu yàgg nga dem ba mu yàgg alali dëkk bi lépp ñu la ko dénk alali dëkk bi lépp nga doy leen ca ñu leen koy dénk mu tudd al amin mu tudd al amin adduna ba mu di dox di dox adduna di dox di dox bañ na ko lépp loo xam ne bokk ci Seydi ñu ne ko lépp lu bokk ci Seex Sidi Asi yaay kilifaam yaay kilifaam boobu daraja benn boobu daraja nag moom benn daraja ëppatu ko doole yàlla yàlla fay. yàlla nañu ko yàlla fayal. te sëmbatal ko ci njabootam. te sëmbatal ko nag ci njaboot gi. yéen ñi fi nekk it. yéen ñi fi nekk it. yàqu leen ci dara. yàqu leen ci dara. ndax wax nga ko léegi. Hmm? sëñ Moustapha. nee na sëñ Moustapha wax nga ko léegi. ak nawloonte dafa am solo. ak nawloonte dafa am solo. soo nawloo nit. soo nawloonte ak nit. bu la ñaanee soxna. bu la ñaanee soxna. danga ko ko may. danga ko ko may. sa doom. sa doom. bu ñaanee doomam. bu ñaanee doomam. nga may ko ko. nga may ko ko. bu ngeen di waxtaan waxtaanu biirum néeg. bu ngeen di waxtaan waxtaanu biirum néeg. dara du ca des. dara du ca des. la nekk ci sa xol lépp. la nekk ci sa xol lépp. da ko génne. foofu mooy nawloo. mooy nawlonte. Euh, sëriñ Basiiru. sëriñ Basiiru. xam na kër gi bu baax. xam na kër gi bu baax. ndax ki fi nekkoon. ndax ki fi nekkoon. digganteem ak sëriñ Bassirou. digganteem ak sëriñ Bassirou. lu nit néew néew xam-xam. lu nit néew néew xam-xam. boo xamee Tiwaawan. boo xamee Tiwaawan. wala nga xam Touba. wala nga xam Touba. seen relation. seen relation ñoom ñaar. da nga ko xam bu baax a baax. waaye nag mooy nawloo gi ngeen waxoon. waaye nag lépp mi ngi nekk ci biir nawloonte googu ngeen waxoon. sëriñ Abdoul Aziz. sëriñ Abdoul Aziz. dañ koo dénk xadratul malikiya. dañ ko deg denk hadratu malikiya. mu di ko doxal bu baax. mu di ko doxal bu baax. sëriñ Basiiru ca Touba yi serigne Basiiru ci Touba yi rol boobu rek lañ ko rek lañ ko Touba. mu di ko dund. mu di ko solo lol délégation bi and ak Aziz. Abdoulaye muy ànd ak euh, Cheikh délégation bi nga xam ne moo ànd ak Serigne Cheikh Abdoulaye Gaynde Fatma. mën nañoo wax ne. mën nañoo wax ne. buntu kër yi. buntu yi. kenn ku nekk mu ne yaa ngi ci biir délégation bi. loolu nag. loolu li muy firi. loolu lu muy firi. mooy xam ne xam ne suñu kër lañ jóge jëm si suñu kër. loolu mat naa sant yàlla bu baax. sëñ Abdoul Aziz. sëñ ci Aziz ci seenu tur. fa mu nekk. fa mu nekk. yàlla na ko gënal fi mu jógee. yàlla na ko gënal fi mu jógee. te am nañ ci bu am nañ ci ju suñu sax. suñu sax. wax am nañ ci dañ naan am nañ ci ndax dundam lépp. ndax dundam lépp. mag ñi la ko jox. mag ñi la ko jox. dundam lépp. dundam lépp. lislaam la jox lislaam la jox. dundam lépp. dundam lépp. ay bokkam la ko jox ay bokkam la ko jox. ak i taalibeem. lu mu mës a am. lu mu mës a am. def na ko ci diine. def na ko ci diine. yéen itam. yéen itam nag. mu dimbalee leen boppam. mu dimbalee leen boppam. yar leen. yar leen. jàngal leen. jàngal leen. teg leen ci siraatal mustaqima. teg leen ci siraatal mustaqima. moo tax mu leen dénk. moo tax mu leen dénk. tay bu dellusiwaatoon jamono. tey bu dellusiwaatoon jamono. dana xamne loxo yim ko baye dana xam loxo yim ko bàyyee. gàccaayaluñ ko gàccaayaluñ ko. it. barki dembu rek. barki dembu rek. ñewna tiwawon ñewna tiwawon sen keur fi ngeen ñew yag ngeen fi ñew kon xam ngeen li fi ne. ñu ngi leen di waxit dal leen jamm ci seen biiri mbokk. fii ngeen ñëw ki fi nekkoon daan liggéey dafa am lu ko yàlla boolante woon ak yéen muy cofeel di pas-pas di nawlonte nawlonte gu sax ñaari nawle bu ñu séqee mbir ñoom dong ko mën a jëflante ngeen naan ñëw ñuy fekkee ba tey yokkiwu leen sunu maam nag daan na wax ni wëllëre way wéq dafa gën ca way màtt mu ni wëllëre wiy wéq mooy wi nga séq ak nit di ko ànd ak moom ba mu xëy xëy jóge fi dem bàyyi càllale ci njabootam nga ne ah ëllëg gise dana am kon fa yàllay dogale gise naa door léegi séq ak ñooña mu bàyyee càllala ñu àndandoo ca wëllëre wa moom ngeen ñëw di mottali ci seen diggante ak kii nga xamante ni tey mooy Serigne Abdoul Aziz Al Amin daan naa wax toujours ni taawu baay mooy baay moom mii mooy taawu Serigne Abdoul Aziz bëri na fu ma dem ñu xoolee ma fa bëtu taaw waaye moom mii moom moo ma tëbb leer ak barke moo ma jox it lim ma jox ba fu ma tooree ñu ne ah ndax kii mooy taawu sëñ ma ne ah man day maay ca ña gën a tuuti. moom mii nag mooy sunu baay ngeen fekk si ko mu am mbégte lool dalal leen wax ni nanu ubbi ubbee kàddu gi wan len ni fii ngeen ñëw seen pee yu bopp la fii ngeen ñëw seeni mbokk ngeen fi fekk mbokk alalu yàlla la yàlla wax waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا yàlla moo garanti ci mbokk mooy alalam xéewalam mu yabalal nu ko mënuñu leen a ëpp mënu leen noo ëpp nu ànd ak mbokk ak cofeel ak ñemente wóolonte nawante jàppante ànd booba ñu séq ko tabaarakallahu boobaak léegi yàlla nee na ana kan mooy ki ko def wa kuntum ala shafa xufratin ala naar yéen a ngi doon bëgga a tàbbi ca kàmbuk alkande ga ana kan moo tee tàbbi wu ca xanaa du nun yàlla yàlla moomu tey moo nu boolewaat tey ci pey bii ci barab bi yàlla na nu ko yàgg séq at yu bëree bëree bëree te mu ànd ak bépp wér ak sutura ñu amaale ci itam occasion sunu maire muy le maire de Thiès di Serigne Babacar Diop yàlla dogal mu ñëwoon at mu jot naka jekk da koy dox ñëw nemmiku ngir kóllëre ak cofeel faf ñu ne ko ñu ngi fii mu ñëw bi mu ñëwee di wax muy wax ba naan ah Serigne euh, Ahmed Saloum moo ko doon introduire ci Serigne Baax. te borom kër gi. te borom kër gi. Maulana Cheikh Abdoul Aziz Al Amin. Al Amin. dañoo ànd ab tukki ëpp ñaar fukki yoon ak juróom. ci Europe. ci Europe. ci Afrique. ci Asie. ci Asie. ak ci moyen bi. muy dëggal rek li sëñ Modou Mbacke si wax léegi. na liggéeyal na mag ñi. waaye liggéeyal na lislaam fu ñu mas a mu taxaw ci pojom ba ci Malaisie ba ci Indonésie bu jëlee kàddu du wax ci turu tariixa ci turu lislaamu Sénégal lay wax kon nag kooku sagal na lislaam protocole bu mu am mu ñëw ci lislaam walla lu jóge ci lislaam jóge ci moom jëm ci ak njabootam dañ naan loola daal mu lu munta ñàkk la rek. nee na wax na ko sëñ Moustapha mii lu matul ñaari weer. nee naa leen pour gàttal rek. day ñaari exemple yu mu bëgg a wax ci moom. benn bi mooy bu masaa mës a ànd libi. benn wala ci yeneen réew yi. kilifa yi mel na moom. kilifa dañ leen di jox ay suite. dañ leen di jox ay suite. xam dañuy am droit diirub ñu day ndax xam ne dañuy am droit diirub ñu fay ne. lu ñu soxla ñu andi leen rek ñu andi leen ko seen néeg. te duñ wàcc ci restaurant bi. te duñ wàcc ci restaurant bi. waaye sëñ Abdou Moussa nangoo toog ci sitam. waaye sëñ nangoo toog ci ab sitam. bu añ bi jotee rek. bu heure bi mu ne Ahmed nañ dem ci restaurant ba. dajale sénégalais yëpp. di di waxtaan ak ñoom di waxtaan ak ñoom. te waxtaan wi yëpp nag. ay leçon la. ak i jàngale. وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين بابكر نيغلي نيو كيتورو سرين بسيرو مين في يبل ak mbollem ñima andal ñep ci buma ci tuddé serigne cheikhuna dana mëna yobalé ñi ci dess di sàkku ci yow. nuyoo boobu. mu jàll ci sa rakk yu baax yii nga toogal. di Serigne Moustapha. sëriñ Cheikh. ak sëriñ Sidi Ahmed. ak mbooleem njaboot gi yëpp. monsieur le maire ñi ngi lay nuyu yow itam. di am mbégte. ci gisewaat gi. foog foog naa mas nañoo daje ci téere bu ñu bind fi barab bisimilah. c'est une communauté de valeur mm-hmm. fa tabaarakallaahu yàlla indee ko ni. rafetale ko nii yàlla na ko yàgg rafetale nii ñu am mbégte suñu baay bi. Xamni amul semaine bo xamni duma wax ak mom ci téléphone su ko jot mayee ma yegg si ci moom ndax xam naa cofeel gi mu am ci ñun am ko ci suñuy wayjur muy cofeel boo xam ni daf ko bokk ak bu ñu neexee ñu ni suñu baay la bu ñu neexee ñu ni suñu rakk la luñ ci wax rekk baax na muy sëriñ Bass Abdou Khadre di kenn rekk ci taxawaayam ci famille bi mu indi délégation bu melni bi fi tew tay nga xamni bu ko neexoon téléphone rek bu ko defoon doynañu bu ko neexoon mu yabal kenn nit rek doynañu mu set ñi mu am ñépp ci ëttu suñu maam borom Touba dajale len ñom ñépp ñay ay kilifa ndax bis bi te mu yapp taxawee tabaarakallaahu yal na yàlla saxal lu mu nekk ñu lool nag ndax kenn ku si nekk ci ñoom buñ leen xoolee xam nañu fii lañu bokk seen bopp lañ fi fekk fa tabaarakallaahu yal na sax et ñi ñu fekk si itam di suñu rakk yi xeebuñu leen ci taxawaay ndax xam nañu bu baax li leen bàyyee lan la ñu taxaw ci ah ndax suñu wayjur dundam yëpp ci tarbiya la ko seeyal dundam yëpp ci tarbiya la ko seeyal xam li mu doon lan la mu taxaw ca na mu ca taxawe bee li mujj ci dundam li nu ci gën téye mooy lépp loo xamante ni diine la fa mu ko teg lépp loo xamante ni bokk la fa mu ko teg fa tabaarakallaahu lii dafa mel ni yàlla moo ko tànnal boppam xéewale ko ci guddi gu mel nii ci bés bu mel nii ndax daan na am suñu baay bii ñu am ci moom cofeel bu amul limite ay cofeel rek ñoo daje fa tabaarakallaahu et ñii nga xam ni ñoo daje ci délégation bi sëriñ Cheikhouna sëriñ Ahmed Saloum suñu bokk deret Serigne Mood Mbàkke si nga fi fekk sax sa natango sax la koy wax parce que ce qui est ngi fi won ci suba ñaari fan la ma ah, délégation bi Touba ah, amaguma confirmation waye xamna ni euh mujjante Bourdre qui na nga

Serigne Touba ak Seydil Hadj Malick radiallahu anhuma et du lu ñàkk solo mukk ndax yenn saa yi nga gis lu ne ak ci jamono waaye nañu fonk suñu bopp nañu taxaw nañu am fayda nañu am personnalité parce que kenn yarewuñu leneen bi ñuy waree jàngloo nit ñi jàng nañu bi ñu waree dox dox nañu xam nañu bu baax lu bëree bëree bari ci àdduna te itam nag keppaaru mag boo ca yaroo dina bëri luñ la déy am na lu bari loo xam ne déy nañu ko fa tabaarakallaahu ah mooy suñu guidance ñi ngi leen di gërëm di leen sant waxtaan wi gudd na waaye lépp rafet na suñu meer bi itam bi ñu nuyoo rek dama ni ko